ay kàddu yoo xamante ni cant la boo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax bi xew-xew bi amee démb te nañ si dellusiwaat nelawuñu démb ndax ay appel woote masawu ñeewant ak taxawaay boo xamante ni kawe na sunu njort nga xam dolli nañu pas-pas dëgëral na sunu pas-pas dolli nañu dogu dolli nañu tamit gën a am yaakaar ci réew mi nga xamante ni mooy Sénégal di réew mu màgg un grand peuple boo xamante ni foo takk bañ injustice weesu na ko foo takk bañ violence ak condamner violence am ci forme yëpp weesu na ko donc kàddu yi ñuy jiital mooy remercier le peuple sénégalais ci dans son entièreté et sa diversité maanaam fépp foo xamante ni doomu Sénégal nekk na fa ak fu mu mën a bokk démb gis nañ ñu yëkkati ay kàddu yëkkati benn taxawaay boo xamante ni euh, am nañ ko ci ñun ci mouvement les serviteurs ba nga xamante ni loolu yéem nañu trop mu nekk loo xamante ni lu ñuy fàttali li tax ñu dugg ci politique loolu daf ko gën a dëgër daf ko gën a dëgëral li nga xamante ni nag xew na démb ñu demoon ci benn ndaje moo xamante ni li ko waral dinañ ci dellu si léegi waaye li xew nekk loo xamante ni lu tiis la ci deru senegal nekk loo xamante ni ci tiis la lu tiis la ci turu Sénégal ndax barab boo xamante ni dañ faa woote ngir xeex injustice maanaam jaay doole ak naka sudul noonu ak fekk lu ñëpp bokk ñenn ci ñun jël ko ne ko ne ko dëndiix barab boobu waruñu faa fekk injustice barab bu ñuy xeexee injustice waruñu fa fekk injustice te dafa mel ni loolu lañ nemmeeku démb moo tax sénégalais yi naqarlu ko ba fu naqarlu yem muy ay jëmm yoo xamante ni jóg nañu daldi ne diw li ñu bëgg mooy jot ci bakkanam ndax démb li xew gis ngeen ko muy ay sànni ay xeer muy ay saaga wax yu ñaaw muy ñoo xamante ni sax gis nga leen ñu yor ay ay armes ay jamukaay te journalistes yi jël ko nga xamante ni xëy na sunu borom moo ñu suturaal waaye buñ jotoon ci ñun kon xëy na tey jii duñu toog fii di wax mu nekk benn tentative d'assassinat boo xamante ni de mërt boo xamante ni ñun noonu lañ ko gisee te noonu lañ ko qualifié te tey jii fii ñuy wax a yéen sunuy avocat ñoo ngi nekk di ko xool di ko saytu ngir xool ban suite judiciaire la ñuy jox loolu nga xamante ni jàpp nañ ne warul am ci Sénégal waratul am ci benn ndaje boo xamante ni moo ngi am ci Sénégal am ñoo xamante ni dañuy jóg jàpp ne am nañu liberté bu toll ni koo xamante ni waxu la defu la yëkkatiwul safaan jëme ko ci yow nga jàpp ne war nga mën a dem jël bakkanam wala mën nga mën a dem yàq li nga xamante ni moom mooy alalam ba démb ñi nga xamante ni ñoom lañ ci àndaloon am na ci ñoo xamante ni ba fii may wax ak yéen dañoo nekk ci traumatisme ci njàqare bu méttee méttee métti loolu mënatul nekk te warul nekk te violence boobu dafa violence physique bi yëpp dafa am benn violence boo xamante ni moom moo ko jiitu mooy une violence verbale dafa am une campagne de désinformation dafa am benn manipulation boo xamante ni ak wax lu dul dëgg sosalaate yoo xamante ni moom moo jiitu li yëpp ba jur lii tey loolu nag moo waral dakk ci réew mi magum jëmm ay magi jëmm yoo xamante ni dañuy toog di wax loo xamante ni wóor na leen ne li ñuy wax amut wóor na leen ne li ñuy wax du dëgg loolu moom moo jur lii ni ñuy xeexee li nga xamante ni moom moo ñu yóbbu woon démb ci place de l'obélisque nga xam noonu la ñuy continuer di ko xeex ak fépp foo xamante ni woote nañ ko fa doomu Sénégal woote na fa woote na ko ndax dañoo gis ñaaw ñaawteef yi nga xamante ni mën na koo jural suñu réew te dinaa ci dellu siwaat mais li ma bëgg a wax mooy que ne politique bi nga xamante ni doomu aadama yi dajaloo nañ ne dañuy dund ci li nga xamante ni moom mooy société humaine dañu ne bu ñu ci jógul xeex li nga xamante ni moom mooy violence doomu aadama dina nekk ment ci moroomu doomu aadamaam lom sera un loup pour l'homme loolu moo tax doomu aadama yi bi ñu toogee ñu xool ñu waxtaan ci pénc yi dañ ne il faut que ñu inventer politique politique mooy lan mooy li ñëpp bokk nan la ñuy jëlee ñenn ci ñun dénk leen ko ngir ñu fexe ba ñëpp jot ci li ñëpp bokk nan la ñuy fexe ba jël ñenn ci ñun dénk leen ko ngir ñëpp jot ci li ci jiitu éducation ci la bokk leneen li santé ci la bokk leneen li sécurité ci la bokk mënuñoo jël nag suñuy doole mutualiser les efforts mutualiser les efforts am ñu ñu dénk suñu sécurité amatuñu sécurité am ñu ñu dénk ne leen bu ñu feebaree dañoo bëgg ñu faj ñu amatuñu amatuñu amuñu santé am ñoo xam dañ leen a dénk ngir bés bu ñu ngir képp ku juddoo ci suñu askan képp ku juddoo ci ci ci li nga xamante ni moom réewum Sénégal mën a denc réer ñu mën laa jàngal ba nga ne jar am xam-xam ba mën a wuti loo xamante ni moom ngay faggoolu lew su boobaa tamit gis nañ ne sunu réew dafa nasax ci côté boobu loolu moo tax ñu gis ne violence mënul continuer mënul woy di am ci dëkk boo xamante ni dañu inventé politique violence mënul wéy ci dëkk boo xamante ni dañu inventé li nga xamante ni moom mooy prison violence mënul woy di am ci dëkk boo xamante ni dañu inventé li nga xamante ni moom mooy pardon mooy les trois P la politique la prison la le pardon société humaine yi xel yu sell yi dañu ko inventé ngir ngir ngir violence denc ci li nga xamante ni moom mooy suñu société kon bu loolu yëpp amee ba tey ñu continuer di gis ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy def politique ñoom ñooy jël violence boobu di ko di ko teg ci seeni way way way way way politique yu yu mel ni ñoom ñu xam ne nag jafe-jafe bu rëy am na te léegi réew mi fii mu toll gis nañ ne kenn muccatul ci violence boobu te ñu jàpp ne mën naa jur musiba bu ñu ci jógul ñun démb musiba mënoon nañoo dal bu ñu sunu borom sutural woon kon loolu jàpp nañ ne c'est missible te jàpp nañ ne tamit duñu ko bàyyi noonu mu dem dinañ ci ñi ci war a wax ñi ci war a taxaw dinañ ci taxaw ba nga xamante ni ñooñu nga xamante ni ñoo doon jëf-jëf ju ñaaw jooju am na sax ay kilifa yoo xamante ni jàpp nañ ne ñoom ay incident rek la loolu du incident rek jëf ju ñaw la joo xamante ni dañ ko war a condamner jusqu'à la dernière énergie naqarlu ko naqarlu ko naqarlu boo xamante ni fépp foo xamante ni mën na fa egg na fa egg ndax man mii toog fii di wax ak yéen tey démb mënoon naa ñàkk suma bakkan fii nga xamante ni moom mooy place de la nation ñi ma àndal mënoon nañoo ñàkk seen bakkan ndax yéen ñëpp gis ngeen li xew beneen bi nga xamante ni dama koy préciser gis naa fu ñu bind fu bari ne Pape Djibril Fall dañ ko yuuxoo ca manifestation ya demewul noonu ni mu demee mooy bi ñu agsee am na ñoo xamante ni suñu teewaay neexu leen waaye gis nañ fa ñoo xamante ni sunu teewaay neex na leen sant nañ yàlla ci gis ñu ci barab boobu nga xamante ni ci lañ ñu xamee képp ku ñu xam ci taxawal askan bi nga ñu xamee képp ku ñu xam ci xeex injustice nga ñu xamee képp ku ñu xam xam nga ne dañoo jaay tey jii suñuy nelaw dañoo jaay suñu sunu nooflaay dañoo sacrifier lu baree bare bari ngir loolu nga xamante ni tey seetlu woon nañ ko ci espace public bi ba tax ñi war a jàng jànguñu ba tax ñi am métier liggéeyuñu ba tax ñi am dépense mënuñoo mënu am nit ñi mënuñoo am dépense ba tax tey retraité yi seen liggéey mooy wut dépense retraité noppalu la war a def tey retraité yëpp ñoo yor kër yi di daw dépense loolu moom moo ñu dugal ci politique loolu ngeen ñu xamee te ci loolu la ñu ne nekk du côté du peuple loolu moom mooy sunu liggéey bi nga xamante ni mooy bi gën a mag sunu yéene bi gëna mag moom mooy taxawal askanu Sénégal fépp foo xamante ni Sénégal soxla nañu fa te noonu ngeen ñu gisee woon bi ñu duggee politique le 22 avril noonu la ñu taxawee ci campagne électorale bi assemblée nationale ñëpp xam nañ ne ba ñu fa duggee nekkuñu ci xeex benn agenda politique gu jàmbur. waxoon naa ko ne nekk lu ma fi ma sàmba nekk lu ma fi ma demba su ma benn kilifa bu tudd ma demba nag nee na naa bàyyi di wax nekk lu ma fi ma demba parce que moom ma demba lu tudd te moom dama ko fee war a nekkal. kon li ñu bëgg a wax rek mooy benn woy politique yóbbuwuñu fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale. askanu Sénégal moo ñu yebal assemblée nationale ne ñu yow Pape Djibril Fall ñun ñooy nekk sa kilifa ngal la waxal ñu loolu moo tax ñun waxaluñu fa Masamba waxaluñu fa Mademba waaye askanu Sénégal rekk lañ fa taxaw di ko waxal di défendre l'intérêt général quoi que ça nous ak lu mu ñu mën a lu mu lu mu ñu lu mu ñu euh, lu mu ñu jar lu luñ ci góobee gar ko leneen li nga xamante ni tamit waxoon naa ko te dama koy waxaat te loolu ñu gis démb muy ay ñaawteef muy saaga muy xaste ak muy ña yuuxu ak ña bëggoon a jël suñu bakkan nañu xam ne waxoon naa leen ne leen waxoon naa leen ne leen te maa ngi koy waxaat tey maa ngi koy bamtuwaat pour mu dugg ci seen bopp ak ci seen xel ak ci seen yuur ne lépp loo xamante ni yàq jaral na leen ko ñun defar dina ko jaral dinañu ko jaral ndax ndax Sénégal lañu am réew mi lañu am duñu ko jëndee dara li juge Kéba Mbaye doon wax nous aimons ce pays jusqu'au vice V-I-C-E-S président Lamine Gueye wax ne j'aime ce pays d'un amour qui m'arrache les larmes Sénégal lañu am duñu ko jëndee dara bëgg nañ ko bëgg boo xamante ni dañ ko koy feddali fu ñu toll ndax moom rek la ñu am amuñu beneen nationalité wutuñu ko Sénégal la ñu am moom lañu bëgg Sénégal bii nag ñu bëgg moom lañu ñu ànd bëgg a ànd defar ak sénégalais yi yi nga xamante ni ñoo yeewoo fii ci biir réew mi ak sénégalais yi nga xamante ni yëpp seen yaakaar dafa jeex biir Sénégal ñiy jaar ci désert bi ñàkk seen bakkan wala ñu egg te seen xel yëpp mu ngi fi ñiy jaar ci géej gi egguñu suñu géej yëpp ay sëg ak ñi nga xamante ni seen yaakaar bu jeex ci senegal moo tax te ñu jël ay avion dem feneen daani fi seen doole faggu fa lu lew